man bi ma leen gisee ngeen toog bi ma rombee rek gis ngeen toog rek dama am mbégte mu rëy. Mhm. Euh, donc voilà donc loolu moo nekk premier impression bi après mu attiré ma ma toog déglu euh, bi ma dégloo nag nga am foo dugg fu am solo euh, par rapport ak le parti Pastef bi nga xam ni tey moo yore le pouvoir yow nga xam nag fi ma fa féete woon ak li nga xam ni. dox naa ko dara rek ma yegal sénégalais yi kii si ñu njëkk bokk Pastef doxal projet bi xeexal projet bi sila bokk kii xam nañ ko waa diaspora bi xeexkat yi amul ku ko xamul. mais dafa am lu am solo. Euh, Kali loo wax nga waat ko ma jàpp ni yàlla na juum waaye am beneen xeel bu ñëw di wax ni. <laughs> Kali est-ce que dina juum parce que la politique autrement Cheikh Ahmed Tidiane waaw la politique autrement mm maanaam beneen façon doxalinu politique waaw boo ko wootee mm-hmm. ba ni nit ñi ñoo war a participer ci ñi nga xam ni ñoom lañu ñu bëgg a fal su ko defee bu ëllëgee ñu mën a am kàddu ci seen kaw. Mm-hmm. ndax boo fayee yow nag yaay wax plat bi nga bëgg ndax yaa fay. Mm-hmm. boo demee ba yegg foofu ak nit ñi. tey nga ñëw ba falu ñu jox la tous les pouvoirs mu am loo xam ni daf fi jaar loo xam ni kenn mënu ko fàtte aussi élection yii nga xam ni moom lañu génn ci Sénégal musul am élection yu ni mel mhm. élection yu ni mel musula am ci Sénégal mhm. Diomaye Faye dix jour la génn bala dix jours yooyu am na benn dialogue bu organisé ci dialogue boobu la ca génn amnistie la amnistie boobu ba mu yeggee assemblée dafa jàll malgré que waa Pastef dañu joué ni dañuy neutre mais amnistie bi dafa jàll ñu voté ko am amnistie boobu moo waral ñu mën a génn ba mën bokk ci liste ba mën a jël réew mi ñu taxaw wax sénégalais yi ni leen jox leen ñu assemblée mais foofu man dama fay taxaw tuuti man dama jàpp ni la politique autrement doon na gën a jekk doon na gën a rafet ci façon booy wanee la politique autrement nga bañ a def ñi fekkoon lañ daan def jël ay milliards def ko ci ay camions yu cher oto yu cher mobiliser des personnes fay ay hôtel def ay t-shirt def ay casquette commander des affiches ñun xam nañu lan la campagne électorale di coûter et pendant ce temps waa Matam ñi ngi ci ndox mi Touba mi ngi ci ndox mi ma jàppoon ni tey wane woon exemple bi moo nekkoon xaalis boobu noonu dugal ko ci fiñ ko soxla wan sénégalais yi exemple saa su sa heure jotee passé RTS nga wane expliquer li nga utiliser ci xaalisu campagne bi li nga waroon a jëndee carburant kenn ku nekk toog sa kër doo bloqué doo indi embouteillage nit ñi di dox seen soxla xaalis bi dem fa mu war a dem mais bu fekkee ni dangaa ñëw indi violence am say nit ay kilifa di wax di yëkkati yenn kàddu yi yu jëm ci violence ba ci premier ministre dem ba quand même yegg ci di inciter ñi mu àndal pour ñu fayu mu fàtte complètement rôlu état mu fàtte completement sa position de premier ministre du Sénégal jaxase ko avec le chef de partie bi mu doon te loolu am na lu ko indi parce que am na lu mu bëgg a wane parce que am na ay wax yu ko jiitu parce que taxaw na ni maa fal maa fal ministre de l'intérieur maa fal euh, ministre euh, de la justice maay seen chef bu demee ba war a exprimer loolu en public a loolu am na lu muy nirool mu dem bay activer ak di désactiver donc je veux que ñu sénégalais yi maintenant on ne peut pas être plus royaliste que le roi loolu la tubaab bi wax sénégalais yi ñoo nangu comme li nga wax taarix la ju buñ la joxee pouvoir ñu jox la euh, assemblée bi mu nekk taarix maintenant pour man c'est le moment d'aller au travail c'est le moment d'aller au travail on n'est plus ci moment boo xam ne dañu war a politique heure politique am na mais heure liggéey dafa war a am je ne pense pas que ni maintenant durant ces cinq ans bu ñu jógee ci lii dañuy daal di projeté wu waat ci ay local kenn ku nekk di positionné wu ci sa localité ñii di utiliser moyen état bi di maye ci ASC di nangam di placer seen bopp pour local yii di war ñëw xaalisu état bi di demati ainsi de suite ñu bañ a dem ci priorité yi nañ ñu wan lu leer buñ ñu wanee lu leer mais nañ ñu wan lu leer ay projet lii ñuy wane nan ñu wax exactement li xew ci réew mi lan moo tax FMI ci kopparam bim ñu waroon a jox li nga xam ni koppar yooyu nattoon nañu ko ci budget bi waroon ko cee def fan la ñuy jëlee lan la koy remplacer waaye pétrole bi ñaata la ci am fi toll nii ak ñi ñu ko séqal ñoom ñaata la ñu am ak euh, contrat bi nu mu demee waaye ñu wax ci or bi ñu demoon ñu wax ñaata aussi ñaata baril par jour wala par euh, par mois la ñuy génnee lan la ci Sénégal am et loolu fan lañ ko projeté fan lañ ko war a dugal et su ko defee ñu tegal ñu un programme très clair vraiment waxtaan si ak sénégalais yi su fekkee ni c'est un programme clair les sénégalais dañuy àndandoo liggéey mais bu ñu yegsee ci période élection parce que deux mille dix-neuf bi ngi ñëw local yi mi ngi ñëw dans presque un an et quelque kenn ku nekk assuré mais bu ñu utiliser les moyens de l'État dafa am rupture et là y un problème au niveau de Pastef parce que tey Diomaye fay amul fu mu wéeru ci parti politique te parce que dafa génn moo tax Ousmane Sonko ni ci Pastef lay demee Ousmane Sonko ci lu bari ci turu kilifa Pastef lay waxee day fàtte ni sax premier ministre tey mu gañe moo gañe moom dafa wane ni man Barthélemy maa la gañeloo woon yow maa la gañeloo woon léegi bi ma demalee sama bopp wane naa ni man maa leen gañeloo woon maa leen joxoon li nga xam ni moom la ñu téye politique la loolu moo tax mu demee sous la bannière de Pastef mais boobu fekk na jomaa yi xamoon na élection yi kañ lay am parce que consulté woon na conseil constitutionnel amoon information bi téye ko jox na ko Ousmane Sonko waajal nañu Sénégal xam loolu la njëkk na ñoo jóg am nañu ay moyen il dispose des médias gars yi su bari daal di daw ñoom maam booy jaaw kenn ku nekk joxe sa dëkk kële joxe Kolda kële joxe la ku nekk am loo tayle di am looy xaar loolu mooy donc politique autrement amatu fi donc ci politique la ñu nekk léegi bu nu séparé kenn nanu bàyyi ñi féete fii ñoo baax ak ñi féete fële ñoo bon loolu fi mu toll nii amatu fi ndax nag d'accord nañu négocier nañ ak président Macky Sall balaa élection yi Sonko d'accord na ko euh, Bassirou Diomaye Faye wax na ni wax na ak doomu le président Macky Sall ba am lu mu wax ak moom d'accord nañu ci gis nañu it biñ leen fale balaa ñu leen di investir officiellement ànd nañu seeti le président Macky Sall toog lan fa wax kenn xamu ko ñoom ci seen biir la yem donc ñëw nañu toog nañu le président Macky Sall s'est retirer mais après mu jékki-jékki ñu commencé sànni ay flèches on a trouver un pays en ruine yow yaa ngi ruiné dëkk bi loolu dafa indi lu yóbbu Sénégal fu fu suufee ba nga xam ni ñu ñu wóoloo woon wóolootuñu ku nekk daal di investisseurs yi daal di ni tekk daal di ni ah nanu taxaw kat un pays en ruine dafa am lu muy tekki lan waroon di lebee mu daal di commencé taux bi yéeg li ñu mujjee lebee ñu ngi lebee ci sept virgule nangam loolu dafa bari sur sept ans loolu dafa bari parce que tout simplement fa ñu fekkoon Sénégal ci notation yi dañu ko euh, rabaisser ci benn waxu le président de la République muy on a trouvé un pays en ruine mu yokk ci ni dañoo fekk ay chiffres yu ñu falsifié loolu dafa rëy daa di dem jëri ji xaalis ay eurobond tombeek FMI joxe woon na li mu waroon joxe FMI ni leen loo leen doyee léegi da ngeen a yore xaalis bu ëpp li ngeen soxla la ma waroon a joxe dootuma ko joxe léegi nag fi mu toll nii problème mi ñu ngi tàmbali léegi Jomaay Fay wax dëgg yàlla je pense que ni voyage am yi muy voyagé jàpp naa ni xëy na Macky Sall ci mbaaxam mi ngi koy conseillé ci suuf dem na Arabie Saoudite dem na Turquie euh, ñun xam nañ ñu muy demee donc xëy na mi ngi waajal parce que Macky am na lu mu dundoon bi muy yegg si Abdoulaye Wade dañu woon du fay trois mois trois mois du fay salaire mu fay mu daal fay salaire dolli ci wàññi dund gi donc xëy na loolu moo nar a nekk dooley le président Diomaye mais Ousmane Sonko il va jouer maintenant jeu boo xam ni day tànn war a tànn ci kaw nekk le chef du gouvernement wala mu nekk le président de l'Assemblée nationale foofu le jeu bi nekk actuellement donc maa ngi jégalu ci guddal bi di euh, sant bu baax kari di gërëm di sant. Euh, chef bi bu baax. waaw non man li ma bëggoon wax rek. Euh, bëri na pour daanal mooy daal. seetaan dàq si ndaje parce que mën a mën ba ñëpp jox la war nga taxaw tey nag wan nit ñi ana li nga doon wax man la te lu ma leer dam ko wax waxaat waxati ko li nekkoon ci boppu président Macky Sall nekk ci bopp des ministres de président Macky Sall nekkul ci bopp Diomaye ak Sonko nekkul ci bopp les ministres de Diomaye et de Sénégal gi nga xamoon mu nekkoon dans les bon rails ba tax na tey FMI soxla woon Sénégal ñii di investir ci adduna bi yëpp ñëw soxla Sénégal këpp ku oh la la kii bëri na bruit ñii di investir si dëkk adduna bi yëpp ci Afrique fépp fu ñu dem di investir